yaakaar naa ne ci ci suñu ndaje. Mm-hmm. ah Cheikh Faaf suñu ndaje nar nar naa garaaw de. xam nga ñaari ñu ñaari ñu ñaari ñu un plus un égale deux. te àdduna lépp. da a nekkee trois de àdduna tukki ma. waaw coow coow coow laa nga ca la coow li ma nga yor ma xiyaam. waaw ñu ñëw ci coow li nag. coow coow li bees li mm-hmm. muy milieu showbiz. milieu showbiz yëngu na daan na yëngu sax mm. parce que liñ fi def yëpp defit la li mm. li xale yi di def yëpp defit la mm. euh, Omar Pène jaar na fi euh, dem si yàlla sekk jaar na fi mhm. Youssou Ndour a ngi fi ba tey mhm. Alioune Mbaye Nder jaar na fi kon mhm. xale dootuñ fi def peut-être ñun ñi xamul lay xaw a jaaxal tuuti waaye mag ñi lii du leen jaaxal ndax super jamono ku dégg super jamono dégg super étoile te ñaar ñooñ di am ba tey war na noo xam ne ay yëfu yàgg na fi euh, concurrence yàgg na fi mais concurrence bu seen li ñuy li xale yi jëlee léegi tuddee ko concurrence mm. diw def lii nga ñëw def même li jël tooñ bugg ko def concurrence mm. est-ce que est-ce que showbiz la wala jëmale na musique Sénégal kanam boo xoolee mm-hmm. mag ñi concurrence yàgg naa am seen diggante mm-hmm. yàgg naa am seen biir mm-hmm. mais ci liggéey ah. dañ ko doon teg ci liggéey boo xoolee mag ñoo ñoon doon concurrence ñoom ñëpp Mhm. ku ki nekk am na loo représenté ci réew mi ku ki nekk am na foo yóbbu musique sénégalaise mag ñooyu noonu ñëpp mhm. ñoon concurrence ku ki nekk def ko dara ci musique ba nekk ci bu niwaa ku ne sa musique sësee na fu toll nii léegi xoolal ñi doon concurrence fan yi ci ginnaaw at yi ci ginnaaw juróom benn at ci ginnaaw juróom ñaar ba mhm. ba xoolal juróomi at ñeent ci ginnaaw ñu ci bëri toog nañ fu ne nii kenn def ci dara ci musique bi te toog nga <laughs> toog nga demoo fenn bloqué nga kenn déglootu la te yaa doon concurrence te defoo dara pour musique sénégalaise. wallaay te mag ñee bi ñu doon concurrence fexe nañ ba réussir dara mun nga concurrence. Mhm. mais booy concurrence nit. Mhm. da ngay lu baax li muy def. Mhm. nga fexe def lu ko raw. mais ci liggéey. ci xam-xam. mais pas ci ñàkk kersa. pas ki soxor. pas ci bon pas ci ci yàq nit lii ma gis artistes yi xewal bees nii. ku ci sañoon sa moroom day dee. ku ci sañoon mun ngaa rey sa moroom te jaru ko. wallaahi te te te te te mag ña. boobu ba léegi ñu ngi concurrence mag ñi ba léegi ñu ngi dund. Mhm. yaa ngi dégg. Mhm. te ba léegi ñu ngi dund. Mhm. kenn rey sa mais dem ba nga ne faafa. Mm. ku ci sañoon sa morom faatu. waaw parce que dañuy dem ba c'est pas c'est pas trop dire. waaw dañuy dem bay day am haine. day am bañante. day am. day day day mujj nekk affaire personnel waaw day nekk affaire personnelle au mu nekk showbiz. dafa dafa mujj nekk mbiru nit ak ñi la sopp. bu buñ sañoon ay soppekeer yi ngi dee buñ la sañoon dañuy xeex yooyu jaru ko diw bu xewlee nga ne bu mu feesal ah, pour dem film fa ñëw ñaay méchant jaru ko na ñëpp liggéey mhm. na ñëpp wut mhm. na ñëpp am mhm. na ñëpp neexle fépp fan mooy neex Sénégal neex wallaay mooy neex Sénégal ay neex Sénégal il faut ñuy nangu dogal nangu li yàlla def nit ñi ñu ànd ci tey euh, par exemple Chris Brown bu doon ñëw Sénégal Sénégal yëpp ay mobiliser du ñu am génnee ko. dëgg la sol li gën a. na booy mu ngi ñëw bëna booy ak yooyu ay dajju. dañuy dem seeti leen taxawu leen. Mhm. nañ ko njëkkee fii. wallaay buñ bëggee développement. foog gis nga culture. Mhm. dafa dafa dafa bokk ci réew dafa bokk ci liy développé réew. Mhm. culture bi nag buñ ko saltalee ba mu salte. su biir réew mi. à ko consommer. ñun ñoo ko mën a rafetal. toppante jàppante mhm. concurrence mun naa am mhm. nit génnee morceau nga dem génnee ju ñu ko dàq fuuf yaa ngi dégg mu def promotion benn nga def mille promotion mhm. loolu concurrence nit sol lu jar un million nga dem fexe ba sol lu jar deux million teg ko fi waaw nit daw oto bi jar un million nga dawal bi jar cinq millions yooyu yëpp bokkul concurrence parce que image dafa am solo ci artiste waaw waaye bu mu feesal maa ngi koy liggéey maa ngi koy xeex bu mu jàdd fii bu leen dem ci moom woo nit ñi bu leen dem ci fam tëju leen yaa jëmale wul musique kanam quoi man mm-hmm. pour man boobu noonu jalu ko mm-hmm. nekk lu positif nga nekk lu neex fépp di suus. Mhm. waaw ku ne di mos nag. Mhm. ah ku ne daa war a mos de. Hmm? vous êtes sur Sénégal 7 blabla buzz faafa. Hmm? Hmm? ñu demaat ci euh, concurrence boobu ba tey. mu dem ba àgg ci télé yi. Euh, àgg ci télé yi mooy benn plateau du ma peut-être ma wax sax 2STV yi. entre temps euh, plateau boo xamante ne Omaro dafay ne. am Amdy Mignon dafay ne. keneen ak keneen dafay ne. mais mu doon xëccoo. ci ay mbiru animateur hmm. Sidi Diop moo def li Sidi Diop moo tooñ Wally sii Sidi Diop moo kii ñee nekk fa di jéem a defar ñii naan dañuy defar ak yooyu noonu hmm. mais est que loolu moo waroon a doon taxawaayu animateur ak ki nga xamante ne day feeñ télé hmm. xam nga tey nit ku nekk na nga tollu ngay defee te jikko yi bu ñu dugg ci plateau télé yi mun nañ koo toog te waxtaan def mbool def def def coalition xool luy jëriñ askan bi ku nekk di jéem a far fenn kii far ci Waly kii far ci Sidi Diop kii far ci mooy loolu gis nga nit sax ku ci nekk am nga loo yëg mhm. nit ku nekk am nga loo bëgg nit ku nekk am na koo bëgg am na koo faral mhm. waaye jarul xuloo jarul xeex dëgg la débat di la mhm. yaa ngi dégg ku ci nekk na wax sa gis-gis man su ma neexee faral Waly yow bu la neexee faral Sidi Diop waaye loolu si su côté musique la du tee ñu waxtaan dëgg du tee ñu ànd du tee ñu jëflante wóor na ma ne équipe bi ngay supporté man supporté wu ma ko dëgg la te ñoo bokk kër. Mhm. di fanaan. Mhm. di lekk mhm. di naan. te ñu ngi ci jàmm. pourquoi pas suñu artistes yi ku ne boo faralee kenn. teewul ngeen nekk ci jàmm. waaw mooy tax dañoo coincé. amuñ luñ teg. ku ci nekk mun ngaa defaan sa artiste te te te te doo xuloo keneen ki. est-ce que dégg nga lu ma la wax. dégg Mm-hmm. vie mm-hmm. mbiru aar jarta reyante jarta xuloo ku ci nekk xam nga ko la mm-hmm. ku ci nekk xam nga kala dàq yëf yi ku ci nekk xam nga kala raw coow ñoo nekk nag ak xëccoo waaye nag gis nga ci nitu télé yi surtout nitu télé yi moom laa leen di wax tey mënoo di représenter toute une population nga ne andi représenter nga nangoo yor kàddu askan nga toog ci télé defi fi manqué pour man je trouve ça te dafa am ñuy créer loolu daa am ñoo xam ne buñ sañoon loolu la ñuy def politique polémique boobu hmm. dañuy créer ci plateau yi moo tax mi andi coow pour trouver le buzz pour nangam sa comprend jaru ko hmm. mun ka wax lu positif hmm. mu neex am buzz ñëpp di ki jaruñu ñëpp apprécier la te du sëse te du sëse jarul xuloo doo ci manqué doo ci doy ci plateau télé pourquoi xuloo lu ñaaw ci plateau télé kii défendre artiste bi kii défendre artiste bi jaru ko jaru ko jaru ko man de su may défendre Wally Seck du ma wax lu négatif parce que xam naa waa ni. waaye sax am na pôle communication am na ñu ko mën a war a défendre. ma ne su ma koy défendre sax man laa wax. du ma wax mhm. lu négatif. Mhm. parce que xam naa ne amul lu négatif. Mhm. te jarul xuloo. parce que mun nga xuloo am ñu la jéppi. wala am ñu la mere wala am ñu ko mere. te deful dara mu ngi liggéey mu ngi daan dooleem mu ngi dimbali ay nit mi ngi jàppale ay doomu aadama. ami employé mhm. ku am soxla ci réew mi mu taxaw ci ku mhm. feebar mu faj nga dem di wax loo xam ne tey nit ñi duñ gis yu am yooyu noonu mhm. kon daal nañuy wax yu baax yi nañuy wax yu baax yi moo ëpp importance nañuy wax yu yiwi dañuy wax kàddu tara dañuy wax taraanga yi dañuy wax yu civilisé yi yéen bi am na yu baax de wallaay garmi yaa ngi fi farisi yi dammel yaa ngi fi di sood bu soo ne ne woon les gens dits civilisés correct qui ont la valeur ah qui sont bien éduqués tax ñu ngi fi ba tey rek. Mhm. ah àggalil. nit ñu yiw. Mhm. te civilisé. Mhm. tarkaal mën a def lu baax. mën a joxe. généreux. tabe. taaru. mën a mën mën a supporter. mën a uuf. ah ñu ngi fi ba tey. ñu ngi ci réew mi. nañuy wax yu baax yooyu nañu valoriser yu baax te génn ci détails yi xëccoo yi jaru ko. dañ leen bëgg a buux de ñooñ moom dañ leen bëgg a buux ba ñu ba ñu sës ci miir ba di leen xoos ci miir wii si. da jaru ba nu ma joxeeb seen bopp sax ñoom. billaay da ngeen a ma gis sa bopp. nañ ñu wax yu baax yi. gars yaa ngi góorgóorlu def yu baax def yee. Mm-hmm. Mm-hmm. réew mi am na defkatu ñu baax. Mm-hmm. defkatu yu baax yooyu nag bokk na ci euh, Ndogé Diaw borom Bercy Saloum. nga jógee expressément. Kaolack ñëw fii Sénégal set Kaolack ngay delluwaat nii. ndax yéen a nga ca conférence de presse ya. yéen a nga ca convoi ya yéen a nga ca affiche ya yéen a nga ca communication ba daal. laal nga bis de bés baa nga noonu. Bercy Saloum doxalal ci sa bés bi après ñu tëj. Bercy Saloum le 11 décembre. stade Lamine Gueye. bés xam nga événement bi dañ koo jàppoon. ñu annulé ko. ndax feebar bi nga xam ne moo amoon ci réew mi. ñu wàcce waa bi def ko la onze. ñu nekk ci liggéey beeg promotion bi def communication événement bi. ba yàlla def na ñu ngi ci cappaandaw yi. événement bi tuwaar fakal dañuy ñaan yàlla yegg ci ak jàmm. Mm-hmm. lan war a def yëpp def nañ ko. Mm-hmm. ça sera un spectacle de ouf. Mm-hmm. yaa ngi dégg. bu mos a am spectacle bu mos am. Sénégal lañ fiy def. Ah, comme Bercy ngeen jël kay. lu ko raw. Mhm. yematuñ ci Bercy kon léegi yokk ngeen xam nga yëf yi dañ ko tuddee ngeen tudde lu raw Bercy lu raw nga ko tuddee mhm. mhm. def lu mhm. a ngi ko def raw na Bercy bu nekk nii kay bu ñu amoon tur bi gën a mag dañ def mais fu ne bis rek lañ mën a bàyyi tur bi mm-hmm. waaye li bëgg a def mu ne nii mm-hmm. daa jéggi dayo Bercy mm-hmm. parce que nee naa Bercy sax salle bi la ñuy décorer salle bi la ñuy aménager waaye ñun dañuy génn stade bi jël route nationale bi dem ba Sibassor entre Kaolack dañ koy décorer ndax événement bi dañ waa Kaarang da ngay ñëw depuis démb waa Kaarang ñu may woo di réserver seen i di waat di réserver seen i mhm. ba ba Gambie. Gambie Gambie ñu ngi woote Gambie moom seen yëfi bës ndax Adama Baro ngeen tuddee. Adama Baro dafa bokk ci pare dina dina mel ni daxinu sipa sipa. ah Vito. ni ko waxee. am na yoo xam ne sa jaru expliqué. Mhm. wallaahi. Mhm. ba ba la onze. xam nga tubaab danaa nul n'est plus aveugle. wallaahi que celui qui se brûle sous le soleil. et aveugle qui n'a ni vu ses rayons ni senti sa chaleur. waaw kenn gën la. Ah, moom jàmbaar la des fois. jàmbaar la. lii ku ko réussir. nan ko wax te dee. ku réussir lii. Mhm. ba ñu annulé ko. Mhm. xaaroo ci kenn. Mhm. loolu ci garaaw. événement bi na ngay ñëw xaaru kenn. kenn fekk siwu ko ci kenn dimbaliwu ko ci. xam nga ko jàppale ak événement bi. kan la ci Wally Seck. je précise. y a que moo jàppale na ngay jow ci événement bi. Hmm. ndax. dañ koo def parrain d'honneur Wally Seck. Mm-hmm. Ah, moom moo koy tëgg di. moo koy joué ñu def ko parrain bu ñu ñëwee ne ko. yaay kat bàyyi bi. waaw ñu ne ko yaay parrain d'honneur bi dafa tiit. <laughs> ne lii de mosuñ ma koo defal ci événement tëgg ne. waaye daf maa mm-hmm. ko woon ginnaaw. xam mm-hmm. parrain sax daan dem ñu mu ne may naa leen cinq millions. cinq. def lii. waaw de sës moom. yegg pare mu ñëw jàppoon na ne événement bi comme événement yi naan am la. dañ koy andi Kaolack teg seen bi tegi chaise nit ñi mm-hmm. kii baal c' neex mooy méthode waaye bi ni ñii liñ bëgg a def mm-hmm. li rawul man li may def Dakar li ñuy def li mm-hmm. ñu naan mu nañu oo xel comme bâche fay koy millions yu bëri defi chapiteau defi table def dîner service traiteur ñëw ñu aménagé stade bi son et lumière def def scène bu spécial comme ñu woowaat ni li ngeen def ngi ne ko xel comme bâche dañuy andi mu ne lu ngeen waxante ko baax ñu ne ko nangam sangam nangam million la wax mu ne ma yéen da a dof mu joxe waat joxe waat naa 4 millions jàppaat ci très bien ça lii la def mooy seule personne boo xam ne jàpp ci événement bi xeetu jàppin bii nii hmm. Wally Seck ñu koy remercier staffu Leila Events par ma voix ñëpp ñu lay remercier la hmm. présidente Nogay Diop mu lay remercier ki sa taxaw ak sa jàppale ci li nga xam ne def nga ko ci événement bi ñooñu ñëpp di ci jàpp hmm. faafa